macha allah da koo jar. ndax Sané Madio daa ñëw jël combat bi teg ci bakkanam te lii dañ koo yàggoon a xaar macha allah. waaw kon nag.